ربي صدري صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من lisaani aquuli qawli waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu soxna si di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki àdduna bi yëpp. waaw comme waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan. bala ñoo dugg ci question dañu bëgg xam kan moo sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan. sëñ Modou borom Kéemaan. jaamu yàlla bu xeebu. don salum salum judo salum yaro fo magge fa euh eh, dekk buñ nan keur sambra xi ñoben comme ni nga koy déggee eh, doon jaamu yàlla boo xam ni missionnaire la ci limi def japp nañ ne yalla ñu fi yebal pour ñuy jang dam dam yi ko koy seug sëñ gaydé na waaw tour mom léeg-léeg nit dana koy sakul bofam léegi-léegi nit danañu la xam fii nodd fii tëflil ko tur bu màggaaleeg moom man sama bàyyi mooma tuddee sëñ Modou Gaynde boroom kéemaan waaw euh, daa am loo ne dafa ñor. Hmm. loo xamante ne dafa nekk hmm. tamit ngi góor ñi. Hmm. nekk faru la léegi da ngay jigéen dañuy am problème mu jëkkër. dañuy bala ñu am jëkkër dañu sonn ba ci ba ci góor ñi sax ñoom tamit dañuy labat de suite mu takk ñu am problème lan moo faru faru rab ak coro rab. waaw faru rab ak coro rab. ñaari question la yu xaw a nuroo waaye du ñu benn. léegi benn bu ci nekk nag dafa am lu koy waral. gis nga su fekkee yàlla dafa dogal nga doon xale bu jigéen. mel ni nga wala mel macha allah. te yàlla booleegul la ak borom kër. wala yàlla booleegul la ak koo xam ne moom nga nekkal. te yow jëfi kuy sëy rek ngay def maanaam fu ñu la fekk yaa ngi set fuñ la fekk yaa ngi xeeñ parfum bu neex sa néeg képp ku fa dugg day yaakaar yaa ngi xaar alaay loolu en général faru rab pour du pour mu dugg la day yomb be waaw loolu da da koy def beneen bi ci topp it mooy gis nga rab yi ñoom dafa am melokaan woo xam ne moom lañ mel ñun nit ñi am melokaan woo xam ne moom lañ mel suñ melokaan boo fi bàyyee dem fekk rab yi seen melokaan ñoom rab bu góor bi bu la gisee day yaakaar na jigéen nga buñ day yaakaar ne rab bu jigéen nga da lay dugg lolu meloo rab moy lan moy comme yi ngay gis rek léegi muy am da ngay gis doom adam bo xamne day yor xaj bari ci posam waye dafa rafle xam nga luy dem ba ba asa aslem wala benen marché bi ngeen di jëndee yo xaalis bari pour wara jënd nga jënd ay dagit rek kese lolu mom day waral li nga xam ni mom moy indi faru rap moy bari lay ba rafle wa bari lay ba rafle ah. lolu baaxul yonenti waxoon na ko na won mu jog jamono ngi ñew di nga bari la lool rafle mhm comprendre lolu da koy def bu fekke ci côté góor ni la aussi dafa bari heure yo ni du heure nit dafa am heure yo xam ni rabbi ñoko mom ñoo ko son bàyyi da nga daan dégg mu lay wax lolu fu digg ci jotee mu ne ñew leen ci kër gi tok leen ñepp tok guddi timit noonu mu ne tëdd leen nelaw ñepp tëdd nelaw guddi dafa am borom digg ci njolloor lu ñuy wax njolloor am borom yor-yor am borom lolu si ñun salum salum yi wala salum salum yi sétan xam nañ waaw léegi nag bu fekkee ni da ngaa seen heure rek mën nga jaxasoo ak ñoom ci seen heure te boo jaxasoo ñoom dañ lay dugg si buru waaw loolu moo koy waral. loolu soxna si dañ koy seppi comme dëkk. seppi comme dëkk. teg ne ah, dëkk bu la ñëwee. Ah. nga xam ne da nga fay nekk di bi seppi da nga koy nii comme dëkk teg fee. Mhm. su fekkee yàlla dogal na nga ñëw. Mhm. ñu xoolale ba xam ne loolu kese moo la jàpp. Mhm. bu fekkee ne am nañ ci pexe. dañ koy seppi comme dëkk jox la loo xam ne dañ koy boole fuddal su fekkee góor nga wala jigéen dañ koy boole fuddal jox la nga tay ko bala fuddal be raf nga am borom keur wala jabar wa ah. waaw gis nga rab wa déglu ma wax la mhm. gis nga rab mm. ñun ñoy buram ñun ñoo ko moom ah waaw yow mi ci nga bokk wala qad karramna bani adam ala alquran wa demal ba ci kanam def ni ina ka khalifatan fil ardi mhm. xaalu atañaalu mun yusudu fi wa yusku diman yow do ma adama mhm. yaay khalifa yalla ci kaw suuf gis nga am na yo xane boko waxe ko waxee day mel ni yaa ngi tooñ gis nga jàpp rab soxna ci jarul ndaw. jarul ndaw ñun ñooy seen buur fu ñu leen fekk toroxal leen. yow mii di wax ak nii. am na ñaari baat ndaw su ma la ko yettoon mm. ñoom ñu wër ma nii tey ànd ak man. Mm. koo ci téye ci wax ko mu def. waaw incha allah. <laughs> sama mbokk góor ah, ah. Ah. ci wàllu këyit. léegi jamono ji damay gis ni. nga xamante bitim réew ñoom day ñoom dañu am problème pour dellu nekk ci ci ci ci machine rek sa kon génn. Hmm. waaye na sa tur nekk ci machine rek. Hmm. ñu mën koo imprimer indil ma ko. Hmm. ñi sama kër xam nañ loolu. soxna si man fi may liggéey boo fa duggee ñaari enveloppe ñaari enveloppe yoo xam ne ña nga fa bu fekkee ni yow danga nekk si àll bi bëgg a ñëw am problème këyit bindal li ngay bind indi ma boole ko la ma koy boole dugal ci enveloppe bi boo ñëwee doo ko fekkaat kooku noonu bu fekkee ni dafa bëgg a ñëw ak nu mën a ñëwee ci àdduna dana ñëw loolu wax naa ko ci émission yu bari mhm. mën na ñëwee nag noo xam ne lu neex seen borom mhm. mais nu mën a ñëwee ci àdduna rek ñëw su fekkee ni da nga nekk fii ci réew mi mhm. ba nga dem am na fa loo xam tamit dañ la koy wax nga indaale muy benn pigeon pitaxu juma mooy pitax yooyu ñuy tuddee bulaawul kooku boo ko indee bu ci defee li ciy def boole ko kéel bi jox ko mu naaw bu naaw moom bu naaw su fekkee ne naawul ko naaw ñaan lu ji leneen waaye xamal ne këyit mbiru këyit moom yàlla woowul la ci su fekkee nag yëkkati nañ ko mu dem jóg dañ naan la jugal dem seen duñ la jox dara nga sangoo ko lenn lañ lay jox nga takk ko te jaaro lay doon jaaro lay ànd nga takk ko su fekkoon ne ni 15 jours nga war def ci réew mi 7 jours nga fi def dem kooku yemuñ cee mbindeef ci àdduna soxna yemu ci mu def enveloppe jëlee. waaw enveloppe bi loolu waaw dañ ciy liggéey. Mm-hmm. mais concentré wuñ ci trop. Mm-hmm. parce que nekkul ne doomu aadama yëpp jaar rek la ñuy waaw mm-hmm. mais kenn ku ci nekk daal ni nga ñëwee. noonu lañ lay liggéeyee. mu jëm ci wàllu waaw waaw. loolu noonu. waaw boobu yor boo xam ne nii. dañ naan ko taxaw temm. taxaw temm waaw. taxaw temm la tudd. waaw déedéet mën na doon benn mën na bañ a doon benn fan. Uh-huh. kooku ñetti fan laa koy ñetti fan la traitement bi ñetti ñetti mbuus lay doon. Uh-huh. loolu ñi miin sama kër wala ñi may seetaan uh-huh. man nañ ma seede ñett lay doon gis nga su fekkee yàlla jox na la yàlla dimbali na la ba nga ñëw ma jox la ko nga utiliser ko la ko waxee képp koo xam ne nii tey sax euh, demoon naa ci ba waxoon képp koo xam ne nii tey da nga yor soxna su ndaw wala yoroo soxna yu bari du ma la ko defal wala su fekkee da nga bëgg yokk sa doole du ma parce que tellement que ni ngay mel dootoo doon do, góor kese mais da ngay doon góor plus. daa am ju yokk. waaw dafa am lu ju yokk parce que dafa am doomu aadama yoo xam ne. Mhm. dañoo yor dafa am ay façon yi façon yi façon yi façon yi faible sexuelle yu am. Mhm. daf si am yoo xam ne dañ la koy def. Mhm. daf si am yoo xam ne rab moo la koy def. daf si am yoo xam ne dañ koy judduwaale. bi nga xam ne moom rab moo la koy def boobu mooy la ñuy wax pousse mu tàkk boobu laa tuddee puus mu tàkk. boobu la koy faj yow. la ilaha illallah soxna ci pos mu tak kep ko xamne kep ko gis mu yor ko bu la yëgalee ngénteem ren bala la ko yegala 8 ans ci kanam te ko buñ la ko joxe su fekke yalla dogal na yoon wiñ la tek nga teggu fa ta waccio ñetti fan la wax do dekk ak jigéen ju ragal ci kër jigéen ju ragal do dekk mom ci kër la wax kay waaw boo ko judduwaale judduwaale su fekke dang ko koo judduwaale aussi ñu xamne li dang ko nga koo judduwaale fu ñuy jaar ak yow fo xamne ni bu soobe yalla ak yonent bi li yalla mayoon bu ko nangul day lay góor ci yow dana delu dellusiwaat léegi fekkee na judduwaale ko su fekkee tamit judduwaale woo ko dalaa dab maanaam boobu mooy bi ma la wax léegi mooy rab def la ko. Ah. wala ñu def la ko. Ah. su fekkee liggéey la fekk dañ la koo def. Hmm. kooku si pàcc semiñ lañ koy dindi. mooy daanaka takk xala. waaw waaw takk xala day am. Ah. Euh, xala moom boo xoolee liñ koy waxee mooy mooy bu fekkee si ñun saalum saalum bi hmm. xala du yàgg. du yàgg waaw da nga daan da ngay da ngay nit. Hmm. jigéen ñu takk ko. te bëggoo kooku ànd ak moom. wala yow sa wujj sa doomi wujj am jabar bëggoo mu ànd ak soxna si nga takk ko xal mhm. waaye bokkul ak bi nga xam ne dañ la koy def def ko ci pom mhm. sànni ko ci miir mu boo ah, ah. xul ñaar la bokkul léegi su fekkee ni takk nañ la xala mhm. boobu du jóg su fekkee ni faiblesse sexuelle la mun na jóg waaye doo am puissance ni nga mën a amee puissance wala doo da ngay yomba jot sa bopp su fekkee nii nag dañ la koo liggéey liggéey la en général li ëpp luñ koy def dañ koy def ci pom pikiir ko ci sànni ko ci miir bi mu toj kooku dafa am lu ñuy jël boole ko pàcc semi ak ay ñeenti xaal taxawal la ci semi maanaam jànj bu jigéen la ñuy jël tel semi bi teg ko fa taxawal la sang ci saa si lay day ah da gis mu wóor la nii tey su doon su doon tey lu lu lu lu suñu réew mi may woon la uh-huh. damay jóg wan waaw da ngay gis mu wër la ni affaire bi da gis mu wër la boo fu jógee rek dem nekk si jàmm. waaw kooku yemuñu ceeb mu def moom it. macha mm-hmm. ngi noonu mm-hmm. gis ngeen yooyu noonu nga xamante ni. Mm-hmm. mooy li nga xamante dafa lëmbee loolu boo ñëwee sama kër soxna si. Euh, mën nga ma bañ a gis sax bu fekkee feebar yooyu moo la indi. doo yëg ci kaw sax. wallaay lancé. boo yi bind ci suuf rek. wax leen sa jàngoro. Ah ñu saafara nga dem seen kon daa am ñeneen ñoo a faj seen loolu ay jàngoro yu ndaw yooyu nga may laaj noonu. jàngoro yu ndaw la noonu. yooyu yooyu yooyu du jàngoro sëriñ du jàngoro yoo xam ne sëriñ day toog di ko naan su ma damay faj lii damay faj laa loolu soxna si ñi miin sama kër xam bu baax bari na si yoo xam ne xam naa loolu de naa la nga koy nga nga koy wax xam naa dañ ci ñëw waaye bari na si doomu aadama yoo xam ne danañ fay yàgg danañ fay def juróom-ñaari fan wala ñu def fa 15 jours sama kër te loolu kese moo leen di indi maa ngi leen di ñaan war a rasuuli ku ci loolu indee jërul ngay yéeg ci kaw jërul ngay yàgg sama kër di ma fa xaar laajal oustaz Baye Niass Diop wala alaaj Thierno Diop wax ko li nga soxla rek bu fekkee yooyu la mu faj la nga def. waaw. man maa borom kéemaan. Ah waaw. sëñ Maodo fi ci dara. ah waaw yow waxal leneen loolu dama koy loolu dañ koy dindi. comme bu fekkoo ne nii tey da am doon doomu aadama boo xam ne sa kër dafa am problème ah. xam nga sa kër bi bu amee problème nu ñu koy def dañ koy dindi monté la beneen kër ni koy dindee noonu ah. noonu laay dindee sida teg mais à condition nag hmm. su fekkee defagul ci yow 4 ans su defagul ci yow 4 ans ah. kooku dama koy dindi teg ko nële te du doon lu ma lay opéré du doon lu may dagg sa yaram du doon lu may def dara fa may jaar yow maa koy xam am na sama benn taal bu nekk États-Unis mhm. gambien la li may wax xamna ko baax a bax mhm. sida xamna ni man yewuma ci mbindeef ci aduna mhm. dama koy faj ci saayir dama koy faj ci batine a condition su fekke defagul ci yow 4 mhm. ans 4 ans wa bu xasse mat ci yow 4 ans nak duma la duma la ko mën a man mën nañ la jox ay garab yu koy calmer nak waye duma ko mën a mais su fekke ni defu defagul ci yow 4 ans yow kay nil ma kenn nak mo lo day na war de soxna ci su fekke ni am nga ci ko am ka ko xam da koy neub ah. ngir yalla ma ngi ñaan

te soxna si yow moom danga maa dar ni dar mesara waaw waaw xam nga ñun ci ndigal la dox te suñu waajuru góor monsieur El Hadj Omar Diop ñu koy nuyu bu baax di ñaan ko mom mo moo borom mbir mhm. te moom Saalum rek la parce que foofu la ko bàyyi sampoon ñun mhm. ñii aussi nekkoon nañ ci leneen mhm. waaye bi ñu ba lolo waral ñu té ndakaaru gi ma mhm. ngi waxat waxon nako fo xamné bañu ma ci commentaire bañu ma ci ay saga bañu ma ci lenn parce que sénégal yi mom dañu xaw a ñaaw làmmiñ mhm. ndakaaru gi du dëkk nangookaayu ñaan waaw dafa bari gis nga bari na ci yo xamné man bi asaman ci téy taw mhm. amna na benn kilifa bu ma joko fi xamna bu baax bi ma woyé téléphone wax mako dama ne ko nañ ma tejeul boîte yépp ñetti fan boîte yi ñi fooye bagage yi ñi fooye yépp nañ mako téyel ñetti fan ndox mi wacc lolou dina yomb dé waaw loolu moo kon yow tontu nga sa question. Uh-huh. loolu moo tax dëkk du dëkk nangu gaay ñaan. bëri na si yoo xam ne boo koy jëfandikoo soxna si. Uh-huh. ardoise bu lew du la tiim. seng bu lew du la tiim. tabax bu lew maanaam dal bu lew du la tiim. taabul bi ngay bindee. bu mm-hmm. lew doo ko fa bindee. bëri na si yoo xam ne boo koy liggéey pour bëgg ci am résultat. Mm-hmm. sondeel moo lay tiim. sondeel waaw wala nga taal taalu li ñuy wax fë Wah, parce que loolu lenen la di depuis si ñoom maam. Mhm. mais bari na si yoo itu di yooyu boo ko bëggee utiliser fii Saloum amoo fi. Mhm. Dakar fi. Ah loolu moo bari na ci loo bokk na ci li nga xam ne. Mhm. mooy tax du ma ñëw Dakar beneen bi ci topp Anda samay àndandoo ñi may àndal. ñoom amuñ place Dakar. ngi la ah wër. waaw <laughs> ñoom amuñ place Ndakaaru. amuñu place Ndakaaru. déedéet benn bu ci nekk rek fi mu war a toog. na fa juróom yoo ñoo fi pour kenn mën a toog. waaw te fukk juróom lañ. waaw de duñ la def dara. jotoo ak ñoom dara. fukk ak juróom lañ. te benn bu ci nekk. fi mu war a toog. juróomi rat ñoo fiy toog. juróomi rat benn ñëw toog. benn ñëw léegi multiplier euh, juróom 5 euh, multiplier par 15. loolu moo tax ñun mënuñoo toog Dakar. waaw sànq da nga wax sa biir wax ne. ba seen ba taw da nga ne dañu tëjal euh, yi. ak euh, li ni moo nekk. barab yi ñuy fooyee yëpp fooyee rek. mais jamono ji daanuma seetlu ci suñu réew mi. waaw deret gi fa bari de. waaw jëkkër ak jabar yaa ngi rayante. waaw. waaw ah. xarit yi xarit yi ngi rayante. waaw léegi est loolu rab la. Ah. wala si beneen bakkan. waaw loolu daa daa rab da koy def. fekkee rab la. Hmm. ah am nga ci solution. bu baax. Uh-huh. loolu tam da koy def bànneexu bakkoon da koy def li tax mooy gis nga suñu maam. Uh-huh. seen Cheikh Tidiane si almaktoum. yàlla na yàlla yokk leeral. waxoon na ko ci benn gàmm. Uh-huh. nee na woon nañ sang réew mi. gis nga mag ñi. dañ daan gis dañoo amoon kasfu. xamoon nañ ne réew mi fii la jëm si. waxoon na nañ sang réew mi. gis nga dafa am rab yoo xam ne nii ñu ngi fii ci biir réew mi. te dañ leen tooñ yore leen bor. war koo fay. te bor yooyu noonu. bari na si ñoo xam ne nii ñi ko war a fay mooy su njiiti réew yi. suñu njiiti réew yi ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw. ñoo war a fay rab yi bor yooyu. tant que fayuñ leen bor yooyu ñoom niñ mën a fayoo rek la ñuy fay. Ah wallahi maa la wax loolu. te yemul fii soxna mm. maa wax de yemul fii de. yemul fii su fekkee teewluñ koo freiné. yemul fii de mm. lu bare bare bare day xew ci réew. mais sëñ Modou si man su fekkee am na. su fekkee am xamante ne war a génne wax man mënu ma ko Ah. su fekkee réew mi moo ko war a génn ah. su ma ko waxee it dama koy wax pour njàpp sama ngelawal génn mais duñ ko génn non li ma wax bari na man li ma ko wax bari na ah. dem nekk naa ba France ñu defoon ma benn interview mhm. yaakaar naa waxoon naa fi vidéo boobu circulé na fu ne mhm. nañ ko mhm. mais la ca comment la ay commentaire ci suuf soxna si bul bul xam mais bul xool commentaire réew mi su fekkee bëgg nañ mu nekk ci jàmm bor yi nga xam ne moom lañ yore gars yi nañ leen ko fay buñ fayee bor yi réew mi nekk si jàmm tali bi net appartement yi net hmm. kër yi net yi net la wax kon ay ca mhm. kon suñu njiitu réew yi kon nañ fay bor bi nañ fay bor bi deret bi baax deret bi nga xam moom tudd fan yi deret bi bari bi mu wàññeeku léegi nag damay ñëwaat sama sama diggante yow Serigne Modou yow wàllu diggante sa diggante waa presse ñeen da ngay daw presse bi loolu wala non na nañ la comprendre ne amoo jot. Hmm, amoo jot tamit waaw waaw waaw d' accord xam nga ñun ak yéen. Hmm. benn lañ. Hmm. parce que euh, mën naa ni. mënu leen a dem sans ñun. ñun mënuñoo dem sans yéen. waaye tamit nit ki dafa am loo xam ne nii da ko ci comprendre. li anglais naan understand da nga ko ci understand bu baax a baax. parce que ñun. yàlla dimbale nañu doon nañ ay doomu aadama yoo xam ne. dañoo dañoo dañoo dañoo wootewul. wootewuñu. te yàlla boole nañu ak ñoo xam ne nii dañuy ñëw ak seen i jàngoro ñu koy saafara ci saayat ak ci baatin léegi su fekkee yow da ñëw sa rakk ñëw sa mag ñëw ma xëy war leen recevoir keneen noonu keneen noonu keneen noonu du ma am temps pour sax di man di nekk ci sama bopp lu bari loolu ñuy dëkk ak man xam na ni léegi nag loolu moo tax doo am temps wu comme di nekk ci presse bi di def émission wala di nekk ci presse bi di dem ci télé yeeg rajo yooyu loolu kese la mais du bës du rëy du dara waaw waaw <laughs> ayca mi noonu Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan euh, moom lañu dalal fii tey a wax macha allah am na beneen beneen beneen bi mooy hmm. buy taw kenn du fa te jamono jii day taw jamono waaw jamono ji hmm. day taw torop day taw si seen daal waaw day taw ba taw kenn du fa weere da ngay bàyyi ba mu muus nga doog fa parce que boo fa muy taw da ngay gën a sonn rek loolu mooy bari na si doomu adama yoo xam ne ñoo yor waxukaay yi. Ah. te xamuñu léegi ñi xam te jotuñ ci waxukaay yi far noppi. Ah, olofal waaw moo tax may la day taw. day te buy taw. kenn du fa mere ah, waaw comprendre na. Mm-hmm. mi ngi noonu. ba li nga jot rek euh, euh, bu ñëwee Dakar unité 15 lay nekk. 77 972 98 81. ou 70 687 47. 697. 697. 47 04 hmm. eh, ngeen jot ko pour kii eh, dem seetu ko incha allah rabi na len li ngeen li ngeen bëgg ci moom incha allah na ko yombal hmm. sëriñ moom hmm. sa diggante artiste yi da ngeen gisante artiste yi waaw xam nga boo yoree lu ñëpp bëgg damay jàpp ne foo jaar rek yow mii tey di waxe yow ni ma may waxe yow nii su nga wala so wala suukar am na ñu ñuy tuddee ay weñ yoo xam dañ lay mbiw parce que loolu lañ les artistes moo xam muy musiciens yi moo xam muy théâtre kat moo xam muy ñëpp dama amoon ak ñoom xalaaxa démb xalaaxa mooy xamante uh-huh. démb tey soog a ñëw dégg uh-huh. léegi bi tey ñëwee euh, lépp loo xam ne ñoom moom la ñuy soxla ci seen métier uh-huh. yàlla dafa xëy na yàlla dafa dogal ni dañ ko gis ci man dafa am ay yoo xam ne artistes yi moom lañ soxla léegi liñ soxla noonu su fekkee gis nañ ko ci man jëruñu koy wëri feneen. jëruñu koy wëri feneen déedéet. Ah. jëruñu koy wëri feneen loolu moo indi sama diggante artistes yi. Mm-hmm. yàlla dimbale ma lool. Mm-hmm. ba nit ki su fekkee liggéeyal nga ko amoo ci amul ci yow amul ci moom amul ci yow satisfaction. Mm-hmm. du la boole ak keneen. ndax dégg nga li ma bëgg a wax. te artistes yi artistes lañuy ñuy ànd ak. mbëri yi mbëri la ñuy ànd uh-huh. ak. Uh-huh. théâtre kat yi théâtre kat ànd ak. Uh-huh. musiciens yi noonu. léegi nag ñoom seen biir ñooy boolewante. ok boo duggee am njëriñ. boo duggee gis njëriñ. xëcc keneen mu dugg comprendre yow mii tey nii su fekkee yàlla dogal na ni jaar naa ak yow barab hélas ñëw wax la am lu la wax yaa ngi dégg wala bala laa hélas loo wax dara yow yaay ñëw ba ci moom yaa ngi dégg yaay daagu ba El Vision nga ne hélas loo man kat gis naa njëriñ fii ak fii ak fii kaay ma boole la ak moom hélas loo moom it bu amee euh, satisfaction ci loolu dem feneen dem ba noa soog wala ba feneen dégg kuy jàmbat loolu daf may booleel moom léegi xalaaxa boobu nag mooy law. loolu moo indi sama digganteeg artistes yi boo ñëwee sama kër ñu fees fa dellu. waaw li ma des ci waxtu bariwul. waaw sa digganteeg Modou Modou yi yow la ma tax Modou Modou yi rek du xaalis man soxna si wala testoron bi ayat laay sama naan xaalis lan. loolu yàlla dama ñoom ñoom ñoo choisir. Ah. man choisiruma de. Ah. ñoom ñoo choisir. Mhm. parce que mooy li ma la wax léegi ci artistes yi rek. Mhm. ñoom képp koo xam ne nii amuloo leen njëriñ mhm. doo liggéey ak ñoom képp koo xam ne amaloo leen amaloo leen njëriñ mm-hmm. doo liggéey ak ñoom mm-hmm. képp koo fa xam benn liggéeyal ko te amul te gisut ci njëriñ du la booleeg morom te Modou Modou yi ñoom it dafa am loo xam ne moom rek la moo leen yittewoo loo moom rek la ñu yittewoo te loolu man dama koy dagate dama <laughs> koy dagate léegi nag li nga xamante ni mooy sama ñaar ñaari question ma dese benn bi ci yow la jëm mais bàyyi rek dañ ah, bu baax bàyyi moom mais bàyyi rek en général ba ko daan def nga gudd fan de ma. dama ah. dégg waaw loolu d'accord. Ah. loolu da koy yokk. da da koy yokk. son maam nee na ma. Ah. janax dafa demoon ci sëriñ. uti mhm. bayre. Mhm. bi mu génnee tase muus. Mhm. wàññeekuwaat nag utal muus waay. ndax dégg nga wax jooju. noonu la demee waaye koo koo dégg ñaar ba lu ko neex rek. ñaar moo mën a ànd. ginnaaw boo ñagee sa tool ba mu rafet. ginnaaw boo jiwee sa tool ba jiw bi rafet ba mu sax macha allah. da nga koy ñag nag pour jur gi bañ ko ruur. loolu mooy affaire bi. Mhm. man am naa ci loo xam ne ci wasa soor laa koy liggéey. wasa garab la boo xam ne saalum saalum bind nañ ko bu baax. Mhm. juróom-ñaari xob ya rek laa ci soxla. Mhm. dëgguloo ko jigéen yoo xam ne gisagul mbaax. loolu na jafe jamono ji de. ah loolu yomb. waaw seen jamono ji yéen seen fii seen côté bii. ah yow nag yow sëñ Moussa yam nga ñun ñun waa Dakar yam nga ñu waa Dakar yi loolu yomb yoon dafa xaw a jafe ah, waaye waaw waaw waaye ñun suñ côté bee ah. yomb nag man boo ñëwee sama kër uh-huh. jigéen catégorie jigéen boo soxla mm-hmm. ma nga mm. su dee ñoo xam ne nii dañoo amagul mm. dañoo gisagul mbaa mm-hmm. lépp am na galaay yoo xam ne ñoo de ñoo koy liggéey am na galaaj yoo xam ne ñi nga xam ne ay seet yu bees la ñoom dañoo koy liggéey mm-hmm. am na galaaj yoo xam ne ku sëyagul du ko liggéey am na galaaj yoo xam ne ñi sëy ñi ne ci biir sëy mm-hmm. ñoo koy liggéey mooy galaaj yu doom yeeg yooyu xam mm-hmm. naa waxtu mayewu waaw mayewu ko loolu la incha allah rek dinañ xuus euh, sama dernière question pour jeexal émission bi dama tax doo jël téléphone yow danga yow na sëñ Mourou na ngaa bëri ci dër nag de soxna si yi parce que man su ma la bëggee seet sa pare ma woo la jotuma la fu may def ba ñëw foofu. waaw waaw waaw man maa ngi dëkk Kër Sambara ci Ndiobène. mais boo jël boo ñëwee ba Kër Madiabel foo boo wàcc Kaolack boo nekk Sambara. boo jël téléphone bi du ma xam. waaw d' accord mais ñàkk jël téléphone bi du sama mm. euh, su fekkee ne mooy li ma la wax léegi saa fas mbooloo. Mm. lu ci waay laa rek mu doy. Mm. te doon naa doomu aadama koo xam ne fu mu ne nii may wax ak yow nii. su fekkoon ne nii yàlla dogal na mm-hmm. mm-hmm. ñëpp laay jël téléphone. parce que képp ku lay woo waaye boo gisee du may jël du may jël man di jël appel yu bari. Mhm. du ma koy bañ a jël mais dama ko dul man di jël. Mhm. day fekk maa ngi jàpp. Mhm. yow bëggoo ma toog ak yow. di la liggéeyal. hélas loolu di woote ma koy jël di wax ak moom. bëggoo loolu. keneen ak keneen noonu keneen ak keneen noonu. loolu la rek waaye du nekkul ne bañ leen a jël nekkul ne bañ a wax ak yéen. nekkul comme ni nga ko waxee ma wax sànq sànni xeer yooyu. déedéet waaye jot moo amul. waaw. dañ lay bàyyi nga tàggoo tàggoo bu tàggoo parce que waxtu bi dem nañu. ñaan bu nangu ak Lorek loolu loolu rek moo ñu daal nag jël bañ a jël appel moom loolu rek moo ñu daal ba ñàkk ñoo bañ a gis gi loolu rek moo ñu da ngay mujjee rëcc sa li nga doon amee rek ok loolu la mhm. ginnaaw loolu maa ngi sant Sénégal bi yëpp mhm. di wax ne yàlla yàlla faj aaju yëpp waxal ku la bëgg a fekk fu lay fekk waaw ku ma bëgg a fekk mën nga ñëw mhm. boo ñëwee di ma fekk kër Samba Raxi Njóobeen 23 kilomètres la ak Kaolack boo ñëwee ba Kaolack da ngay laaj sept place yi jëm kër ma boo wàccee kër ma foo taxaw ci kër ma boo ne kër sëñ Modou Borom Kéemaan laa jëm kër Samba Raxi ñu indi la boo ñëwee si kàttanu yàlla ak mbaaxam di nga fa fekk programme boo xam ne nga toog programme boobu ba bay yàlla di yëwénal say mbir. incha allah incha allah bi xool. da waaw Dakar moom ci am ma koy forcé waaye su ma sañoon du ma fi joxe naa ah, parce que du fi nekk lu bari. du fi nek lu bari suma nekké nekkee Dakar nag maa ngi unité 15. unité 15 dernier mbedd avant géej. première dose am deuxième. inshallah allah waaw boo wàccee rek ma ngi ko boobu. joxe sa numéro téléphone. suma numéro bi ngi 77. 972. 98. 81. bo wootee si bobu jotto mo nga def 70. 697. 47. 04. lii yëpp euh, pour bëgg yombal nit ñi jot bi ñaari numéro laa yor. ñaari numéro pour bëgg pour bëgg nit ñi di yomb jot. <laughs> rahmatullahi wa barakatu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu fi amaanillah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu ayca mi ngi noonu Serigne Modou Gaynde borom kéemaan la fi dalaloon tey fii ci émission bi macha allah mu nekk borom xam-xam koo xamante ni ku yàlla baaxal la gis ngeen lu ñu fi jox yëpp yeneen yi nga xamante ne nag yeneen feebar yi ngeen am wala yeneen jafe-jafe yi ngeen am boo nekkoo ci numéro téléphone bi 77 972 98 81 ou 70 687 697 47 04 boo nekk ci woowaree incha allah rabbi seen aajo yëpp dina faju ci kàttanu yàlla incha allah lii waa lu ñu am yàlla nañ am yàlla waaye lépp lu ñàkk it yàlla bu ñàkk yàlla jaam sax ci yi sax ci Sénégal jaam a gën jamaa yàlla jaam am ndax maa bes da baax mal naa wax ku yor sa ëmb ci gaal bu ne yàlla ëmb gi mucc danga ne am yàlla gaal gi mucc gaal gi mucc ëmb gi mucc nekk ci gaal gi mucc lépp lu ñu am yàlla ñu am yàlla waaye tamit euh, li nga xamante ni moom la Serigne Modou Gueye indi fii Serigne Babacar Sy dana wax naa sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu yax kon boo leen nangu boo leen ñaanloo rek yàlla dina ko nangu incha allah rabbi dañ leen jox di daje ci beneen émission waaxiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu El Vision Médias abonné alhamdulillah